MPROD TV maa ngi leen di bëggee Medoune Diouf sëtu Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf bi ñoo ngi fii Géejawaay kër Boucher Ketchup ndogu nan ba pare ndogu li neex na allahuma la ko sumtu la ñëpp doon xaar dégg nañ ko faram tuu nag lekk na fi quatre palaat man mosuma gis lii yàlla may na la. <laughs> allahuma la ko sumtu moom moo gënal asalaatu xayr mi na noonu barkinti yàlla Muhammad <laughs> mais maa ngi lay bëggee. ñu ngi laa fay. naka sant yàlla. lépp jàmm lépp jàmm. mais ñu ngi jëm ci bis bu mag nag. Mhm. balaa ma lay laaj. ci diggante Alboury ak Ndiambane 2 dama bëgg nga ñëwal ma ci diggante Alaaji Mbay ak Ketchup ndax danoo bëri woon. Mhm. Alaaji ne ko daan naa la mi na ko daanuloon. Mhm. combat bu seetaan dama seetaan diggante Alaaji Mbay ak buuse ñoom ñaar ñu bëri lu doy waar. lu yàlla bind buuse kenn dàq ko def action ci biir bëre waaye alaaji mbay li gën a jafe lay bëre mooy contre kele alaaji mbay ci biir bëre bi buuse di bëre di ko taf di ko lalli di ko ŋoobu ci la alaaji mbay di créer la muy bëre moom moo tax combat bu garaaw kon alaaji bëre kat la loolu dañ koy waxati loolu koy jër dem mali duuti ñaan alaaji mbay bërikat la jëru dem Mali wuti ñaan mais mais combat bu njëkk ba dama ne la alaaji nee na dafa daan buuse jël bu leer nañ buuse na ko daan da ko daan ci avec manière alaaji mbay lam la ko buuse def ak fa alaaji mbay kal euh, buuse euh, jël ampa loolu buuse warta sax wax daanoo ma ndax buuse daa taf alaaji mbay laali ko ngóob ko àgg ca wet ga sori ci lool jàpp ca demant jàpp ca dëju ngemb ga taf kon lalli ko alaaji mbay kele ko mu tafaat laale alaaji mbay kele mu tafaat laale alaaji mbay kele ñu dem ba ci bër suuf buusi du yëttu loxoom alaaji mbay ràcc bi buusi demee ba ronu alaaji mbay dem di ko def 16 alaaji mbay yëndu tànk bële ca kanam daal koy kal daal di jiital loxoom jël ba nag du mën a mën a buusi du nangu ne alaaji mbay daan na ko ndax circonstance yi ko alaaji mbay fekk xam nga muus dañ ne nan la kanamu jinax dañ ne ko nan la kanamu muus mel munu munuma koo xam ndax circonstances yi ñuy daje la. Alaaji Mbay fi mu fi mu këlee Boucher jël ba dafa xajam muy combat boo xam ne nii na ko lamb bàyyi xel. kon kon Boucher. kon Boucher revanche lay bëri. Boucher lay bëri si. Boucher revanche lay bëri si ak Alaaji Mbay di combat bu danse nag. di combat boo xam ne ñoom ñaar ay wax ci nekk nii waaye dañ ciy indi ngemb dañ ciy indi lépp ndax Boucher bu ko doon sàgganee ba Alaaji Mbay daan ko dootu waxati nit lu saf ci lamb te Alaaji Mbay rek daa war a confirmer ndax daa daanal daa daan bu si jël bu rëy way ko daa daan bu si bu rëy ànd ceeg coow lu bëree bëree bëree bëri daa war a ñëw confirmer war na maa mën waaye lii ma koy wax Boucher bu defee ñetti action te Aladji Mbaye daanu wut na téye boppam bu ñeentee Aladji Mbaye ci la koy. tax muy téye boppam bu ko bu ñeentee Aladji Mbaye na ko ci daan ko ci kenn ñeenteel kele ba. Boucher boo defee premier kele deuxième kele troisième kele ci benn ci benn congu. Ah, su boobaa gi Boucher du vidéo. moo tax ma ne déglu ma la xanaa. buusi bu ne songu na alaaji mbay laali na ko taf na ko sukkar bi na ko benn sottiwu ci na téye boppam bu ñeenti alaaji mbay dina ko kal na xobal combat boobu rek combat boobu rek mën naa feesal arène nationale combat alaaji mbay buusi mën naa feesal arène nationale le 15 mai alaaji mbay buusi dafa nekk combat boo xam ne njar ndéem la nekk ñoom ñaar ñoo xam ne ñu ngi leen xaar ci mu rëy di leen xaar ci pecc mu rëy di leen xaar ci lépp alaaji mbay bu ñu fàtte ne Ama Baldé ko indi Ama Baldé ko ëmb indi ko ca bés ba waaw ah, mais bu fàttali Balla Gaye ko la wax waaye dama xam ne El Hadj Ma ah, ah, Ama Baldé lamb da koo namm Ama Baldé mu namb ëmb El Hadj Mbaye ah nam ko daan defee dagg fas bu wëndeelu jarga ndaloog moom Ama Baldé neexut a génn ci lamb. Ama Baldé ba illaa yow mi diin mbër mu mel ni moom dootu yombati ci lamb. mais lamb la Ama Baldé namm boo bëggee dégg dëgg a doomu Falaye Baldé ji lamb namm na ko de. Ama waru di gëj bëre. politique yi ci bëri. day bëggal amateur yi. day bëggal amateur yi. ba pare 2015 ba benn combat la. dama ne la Ama dama lay wax. Ama xale la dama wax déglu baax li ma lay wax. fii làmb toll làmb mënta dem sans Ama Baldé dafa am benn harmonie boo xam ne ni ak coowu làmb boo xam ne ak rigueur boo xam ne ci Ama Baldé nga koy gis ay bu la Ama Baldé rombeeg njaxas ba def soor ba xaatim ga takk dakk ndaam ga takk përëgee rombal ak wallu wallu yi ñii di yëngal nii nga xam ne mbër pire Ama Baldé am na ñoo xam ne dañoo bëgg mbër gi dem nekk ko waaye daa judd fekk ngemb gi ci kër gi toog ba ngemb gi jot ko mu sol ko mu mat ku sëkk mu wàcc ci lamb kon kooku lamb mënu ko fàtte doomu Falaye Baldé jooju ne ko lamb lamb nga koy jooy. xaar bi mu xaar ci digganteem ak Modou Lo mooy yàgg est-ce que combat boobu am. non mu am ak mu ñàkk am yëpp ñu ngi ciy ñaanal promoteur bi loolu am waaye dañ ne mbër mu mel ni doomu Falaye Baldé jii di Ama balde day mel ni keroog bi Modou Lo dëkkee Gris Bordeaux képp ko xam Fass ak na Fass toll ak Gris Bordeaux man daanaka Antoine Bakhoum da nga ne Modou Lo mii mënta daan am mënta daan Gris Bordeaux waaye Modou Lo ci gëm-gëmam Modou Lo position ba mu tolloon ca lamb ba ne Gris Bordeaux la mënta Gris Bordeaux ñu mënta ibbi géem ñoom fa la Ama bi toll ci lamb na ko lamb bàyyi xel doomu Falaye Baldé ji lamb ko soxla Ama Baldé lamb moo ko soxla ci. ak lu lamb ko namm. non dañ ko namm. namm tuusu Ama Baldé. non Ama Baldé lépp mu soxla. lépp amaa Baldé dañ ko soxla. 15 ans day ñëw ba. day ñëw gunge Alaaji. Alaaji Mbay Alaaji Mbay ko gën a jege ci nitam. bi ko Ama Alaaji Mbay naan ko roi des arènes boobu nit wax ko ko. Ama mbër la na ko làmb bàyyi xel te naa leen wax leen ngeen dégg ko mbër yi nañ xool li ñuy def Ama Baldé mbër mu mel ni moom nañ ci liñ ni ko laay dimbale. bu fekkee moom loo mënta bëreeg moom mu xool ñu keneen ko Ama Baldé mën a bëreel ndax lamb na mën a Ama Baldé. lamb na mën a amaa Baldé bokk ci luy dundal lamb. waaw dama ne arène nationale bi Ama Baldé wàcc ci xam loolu gis la Ama Baldé kuy bëreeg moom bul 11 jours fekk stade doo dugg man fa dem maa ko wax. moo rakki cal te sal kenn rakki di cal. xam nga ne Alaaji Baye Balla Mbuub. loolu ah Alaaji Baye Alaaji Alaaji Baye Balla Mbuub. ma ne ko amateur ñoo nam rakki cal te sal kenn rakki cal loolu. loolu Pekka Mbaye ku tëgg. waaw xam nga Alaaji Baye Balla Mbuub dinaa la jëy dara ci làmb. naan ron kin tal mbaq ci kin ci kin ra kin tal dat sa kin kin wala amee du lool xam nga ne xam xam nga ne lii nga wax nii xam ne lii nga wax nii faj na rab. barke El Hadj Malick faj na rab. lii nga wax Ama Baldé lii mu def nii xam nga lamb harmonie la ak aada ak cosaan te Ama de bëri na lii ñëw ci lamb Ama Baldé ko indi dafa jot lamb jox sansam Ama de muy xale boo xam ne ni nekk ci làmb yaakaar naa ne da ngay xool ay nawlem ci Pikine ñaata combat lañ bëri ci kaw Ama Baldé te du yoon na ko lamb may sansam mais combat boobu tamit wax dëgg yàlla boo ñëwoon arène national 1 ba 26 génn Pikine génn. non gis lu doy waar lamb day dellu fa mu nekk. dinaa la wax leen combat boobu rek mooy combat bi nga xamante ni moo mënoon dellu si la. Alaaji Baye dinaa la wax leen nga ko bëgg naa bëri Modou waaye maa mën Modou Lo doo ko dégg ci lamb. bëgg naa bëri Modou Lo rek fi naa bëri Modou Lo rek fi ne waaye góor du yëkkati loxoom ne maa mën Modou Lo. lu tax loolu. ba muy indi forme ci lamb kenn góor ñi ko fi indi. Modou Lo daanul koo xam ne nii koo xam ne nii favori li ci kawam déedéet ñim daan ñëpp dar gémmi ñëpp ñoo nekkoon favori ci kawam maa daan ëmm seen ci lamb ñaari yoon doy na woy ci lamb. sama doyen moo la moo daan wax naan guddul ni ñoom tollu ni ñoom waaye moo leen jaaxal. mbër gaa ngi ca biir mbër gaa ngi ca biir yaram ba. mbër mbër gaa ngi ca biir yaram ba Modou Lo dafa dafa dafa ñëw ci lamb nekk tukaar ci lamb écrit ba mu nekkoon daanaka bokkoon na ci ñi nga xam ne nii ñu ñaan mber ngembu mu ràññee dégg fa daal yi téye parcelle ci loxoom Modou Lo Modou Lo Modou Lo lamb dafa wàccoog moom. amul nit di faral Modou Lo naan nii ci làmb wala déedéet Modou Lo amul ku nit du koy faral day amati pression ci làmb non non Modou Lo fa mu fekk parcelle yi fa nekk yëpp dañoo wàll jiyante woon feneen doog a ñëw parcelle Modou Lo moo fay ko parcelle quarante mille ba cent cinquante millions. Alboury Ndiambane 2 bésu la 15 lan nga ciy wax lan ngay wax amateurs yi ak supporters yi. Alboury Ndiambane 2 dafa nekk. lan lañ a xaar ci culture ci a bari diggante Ndiambane 2 ak Alboury dinaa la wax leen nga dégg ku ci bàyyi daanu Alboury bu sàgganee ba ne day xeex ak Ndiambande dina ñàkk lambam waaye Ndiambande bu su toppee Alboury ci xeex ba ci bëre ba dina juum. waaw Ndiambande su ma koy indiwoon combat distance laa koy du ko jege du ko jàpp du ko du xool ngembam du ko jox gis Alboury su ma ko indiwoon dama naa ko Ndiambande soo leewaatee moom la seen ñaari loxo laalante. nga jël ce que dina am repère. waaw xam nga ñàkk repère ci mbër mooy lan mooy gëj ci làmb te bàyyi ànd ak nitu làmb mais Ndiambane de gëj naa bëri waaye mu ngi doon ànd ak ay nitu làmb yaakaar naa ne combat yi am géej waaye yëpp bokkoon na ci ñu ko doon préparé ba pare muy bëri mbër mu mësta daanu mësta dégg mu ñëw mais mais xam nga de su ma ko indi woon ko kaay bëri Albouri du takk dakk ndam du ma takk ay ay gàlla ci përëg ndax Albouri day am fu mu jafandu boobaa dama koy xañ lépp loo xam ne fu Albouri mën a jafandu xeex rek xeex rek koy may ndam ci combat boobu. bàyyi nga ni juróom fukki sabar ñoo nar a ñëw ci biir arène nationale. moom dama ko bëgg wax ci su ma ko indi woon su ko indi woon dinaa bu mu fexeel bu mu romb cinq minutes nu combat bi a gaaw gën a gaaw ci yow bëre ba seen ñaari ngir duggante say avantage ci la nekk waaye bu xeex ak njambaan de ndax xeex ba ci ay avantage la bokk. kon la waa Seng Seng gis nga bés. bàyyi nga ni Tarba Mbaye day ñëw. mënta ñàkk. tant d'autres am na yeneen. alaaji Baye Balla Mbuub dinaa la wax leen nga dégg ko lambum nit mënu ci wax lu alaaji Moustapha Ndiaye waxut lambum nit mënu fee jëf lu suñu papa Gaston mi ngi jëfut lamb nit munu fee tëgg bës boo xam ne organiser ko ci wàllu coow lu nit ku naay defut waaye mën nga fee créer nag lu bees loo xam ne lu kenn mës def waaye la 15 mais bée ba dana yomb amateur yi dinañ gis bari bu metti te bés ba dana neex lool te dana yaatu te képp koo xam ne ak lu làmb nga te yaa ci bés bi maa ngi lay daal ñu ngi leen di jox rendez-vous yéen ñëpp képp koo xam ne nii ci média nga nekk rek ñu leen di ñaanal jàmm wura ba dem na kën ma dem deng wuy ma le 15 lay xew loolu bu leen ko kenn nettali de yàlla nañ ci yàlla boog jàmm waaye medun foog ma nuyu Boubacar Ka mu Serigne Saliou doomu réew mi la mi ngi def lu baax ci réew mi Boubacar Ka doomu nday Baye ma njoon mon ami mon frère doomu nday Fadam Tou Boubacar Ka maa ngi lay béggee bu baax a baax Serigne Saliou rek la gëm mais maa ngi nuyu nday Ana mu Pa Modou Diop ca Sweden Stockholm kooku sama sama soxna la. et eh, Matar Mbaye borom lan borom Arlem mais Matar mais na naa naal nag may booy jantal booy maa lay déggee la.